yonente nee na yàlla du xool seen ni ngeen mel nii ndax ku gàtt la wala ku njool nga du xool seen alal yi itam ndax ay kat-kat nga yor wala saret waaye li muy xool mooy seen xol yi lan ngeen ci yéena ak gannaaw ba ngeen yéena lan ngeen jëf kon mbir mi yéena la ak i jëf ku naan xol xol xol rek xol bu rafet la yàlla defee te jëfoo loolu day pertement la